mën mënees naa ko woo fii de. waaw waaw waaw yow woo ko la asma. waaw heure jox ñu. voilà aywa boo dugal ko le point a ci maître Abdoulaye Tine. au parleur question de l'union sociale libérale daal na ciy dikk ah. Diomaye Faye doit bénéficier donc d'une liberté provisoire moo ko xamle jusqu'à son procès. si le président nouvellement élu est empêché au point de ne pas pouvoir venir donc prêter serment le conseil constitutionnel constat, euh, constatera son absence qui équivaudra donc à une vacance du pouvoir mooy li ñu doon wax démb rek. Euh, absolument là maintenant c'est un juriste. Mhm. qui confirme ce qui a été écrit hier. Mhm. dans le point actuel un juriste. allo président maa ngi lay oui président Bougane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay sant bu baax. alors ñun ñoo doon euh, euh, bëgg rek xam sa seen taxawaay ci euh, rencontre bi ngeen di amal tey fële ca palais de la république ak président Macky Sall ne ngeen da di bañ report des élections mais ndax loolu naka la mën a nekkee lu ci seen taxawaay. ba alors maa ngi sant ñëpp maa ngi maa ngi leen di nuyu. Mhm. ce qui est clair depuis le départ. Mhm. mooy ñun dañu jàpp ne dañu tooñ. dañu jàpp ne suñu àq mooy suñuy droit dañ ko bafoué avec le conseil constitutionnel mm-hmm. boo xam ne c'est sur du faux la basé décision am yi mu jël yëpp bi ci njëkk mooy ñoom ci seen wax ñoom conseil constitutionnel mm-hmm. wax nañu ne ci wàllu parrainage bi dañu ne euh, contrôle strict la maanaam boo bindee parrain lépp la ñuy xool bu ci amee dara lu baaxul dañ koy dindi sànni alors que arrêté ministériel bi organiser mbirum élection ci article quatre waxul loolu dafa ne benn rek bu baaxul ci lañ mun a sànni parrain bi mooy discriminant donc décision yi ñu jël yëpp c'est sur du faux ma jox la beneen bi ñu demee ci décision liste définitive bi ñoom seen liste définitive lan moo tax ñu ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi dañ ne le 4 janvier dañ ko jugé le 4 janvier ñu ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi parce que le 4 janvier dañ ko jugé mais ñu ne Karim Wade le 16 janvier le décret bu France wane ne nekkatuloo français ya y a contradiction mënoo accepter le 4 pour Ousmane Sonko rejeter le 16 pour Karim wadd nous avons un conseil constitutionnel boo xam ne tey waa PDS wax nañu ko ay nit lañu ñu tey xel waaw léegi ñun jàpp nañ ne dañ ñu tooñ dem nañu Union européenne dem nañu gis ñi toogal al fii nii damay wax nag ne ñi ngi dégg ci rajo yi ñuy ngal-ngalee ko wax ñëpp ñoom ñëpp dañu bokk ci ñi signé ñi naan nañ leen ci këccët ak ñëpp dañu bokk ci ñi signé waa léegi man Bougane Gueye mhm. man lettre boobu ci biir salle bi laa ko gisee wallahi lazim ah, ah lettre bi ba ñu koy joxe man ci biir salle bi laa ko gisee mais gis nga nit boo àndeek ay doomu aadama da ngay gore. Mhm. wéet gore wéetaliku gore. Mhm. ba ma gisee lettre bi ñu ne ñu dañuy signer mais dama xool lettre bi à l'instant moi j'ai signé je suis pas posé de questions parce que da nga nekk ci biir say moroom nekk ci say biiri ngor. Mhm. ok. waaw léegi ñun li ñu bëggoon mooy ci biir processus bi ñu rencontré ñu mhm. wax ñu delloo ñu suñuy droit mhm. est ce qui se passe mhm. moom président ma jàpp man man personnellement nañu waxante li ñuy waxante man Bougane sama euh, xalaat man mooy bu bëggoon a lijjanti problème bi dana ko def avant conseil constitutionnel di génne liste bi waaye léegi bàyyi na ba conseil constitutionnel génne listam ba pare au lieu mu tontu mu ne moom nañu ñëw. wuy si ci invitation bu mu def. ndax di ngeen dem. man personnellement man su ma doon décider dama naan duma ko wuy. Mhm. parce que jàpp naa ne lu mu lijjanti wutoon avant décision conseil constitutionnel mënu koo lijjanti après décision conseil constitutionnel. kon ndax mën nañ leen fa séntu di ngeen di mën nañ leen fen euh, fa xaar euh, ci wuyu ji Macky Sall. non ma ne ma ne. Mhm. du man maay décider. boo nekkee ci biir mbooloo. Mhm. même boo d'accord da ngay respecter décision mbooloo. très bien. waaw mais kan moo mais initiative bu lettre bi kan la kan moo. initié lettre non la initiative bu lettre bi ñu bind président de la république. moom si boppam ki taxaw di ngal ngali ne moom bokkul ca ñay dem ak nangam nangam et puis dafa am solo. li mu li mu posté. Mhm. moom li mu posté. Mhm. Mimi Touré. lam la mu wax. Mhm. waxul benn yoon ne intérêt général dafa ne moom ka ko def loolu mooy ki ko di génne assemblée ki ko toroxal maanaam. mais loolu problème personnel am la. et pourtant ba muy initier lettre bi di ko signer moom xamoon na ne kooku moo ko defoon loolu. gis làmmiñ bu waxul dëgg rek wax safaan mhm. man bugaan ku ma xam-xam ne ku ma fu ma fekkee ñaari nit ñuy xeex ma ràññee kenn ci Macky sàll la damay jël yat fëgg ko ko ba pare <laughs> doo ko laaj ki muy xeexal lan moo leen boole. très bien donc les choses sont très claires. Mhm. mais il faut pas vouloir jeter les gens en pâture. parce que tout simplement bëgg nga nit ñi am fu ñu la teg wala nit ñi am fu ñu la. nangam sangam ou quelque chose comme ça sénégalais yi dofuñu de. démb. mi ngi fi bërki démb mi ngi fi bërkaati démb mi ngi fi li am solo. Mm-hmm. mooy naka lañu mun a demee ci élection boo xam ne du am benn jiixi jaaxa et sénégalais yi dañu fatigué dama ne. Mm-hmm. ñii fi ne. Mm-hmm. coono bi ñu teg sénégalais yi. képp koo xam ne ànd nga ci ñu puus élection tarafatal ayn bu keroogee bu ñuy jël yat di jëm si ci yow doo xam fu ñuy jóge parce que les gens dañu bëgg lii fi nekk jóge fi wax naa ko bërki dem golo gi dafa nekk ci tool bi di yàq li ñu intéressé mooy génne golo gi ci tool bi parce golo gaa ngi yàq tool bi très donc li am solo encore une fois mm-hmm. kilifa moom mooy président woo na la ne da ngay daf lay déglu. Mhm. mais ñi nekk ci biir collectif bi ay magum jëmm lañu ay nit ñuy xeex. Mhm. Macky Sall mënta boole kenn ci reportu élection bëgguloo ko nga dugg ci man bugaan duma ci dugg man bugaan ku ànd ak man du ci ànd te buñ ma fekkee it may dugg ci mbiru reportu élection nit ñi dana nu ma xeeb maintenant. ba ñuy bind leetre bi dama bokk ca ña ko signé. Mhm. donte man initié wu ma lettre bi. def référence ak wax dëgg ca ay kilifa ñoo fa nekk. Mhm. ay nit ñoo xam ne ils se sont toujours battus. Mhm. tey li am solo mooy comment faire pour avoir une élection transparente une élection inclusive mais une élection boo xam ne bu ëllëgee kenn du ci am dara loo xam ne lu muy laam-laamee la. et loolu moom mooy dëgg fichier bi ñu yor mm-hmm. fichier bi ñu defee parenage mm-hmm. la Ablaye Wade waxoon bu ñu ci demee encore élection mm-hmm. njublang yi tëral nañu seen plan ba pare tant que fichier bu baax bi teguñu ko ci table bi kenn ku nekk teg ci bëtam nit ñi def ci contrôle mu leer bu ñu ko deful lépp lu ñu def comme initiative c'est voué à l'échec. Très bien. et puis li am solo fàttali leen ko. dañu am ay candidats yoo xam ne dañoo valider dañ leen valider hmm. yoo xam ne dañu ànd ak ñun ci biir combat bi ñuy def. Hmm. Hmm. donc li am solo mooy nekk benn say. mais coow bi encore une fois mais tu peux pas euh, vouloir dénaturer quelque chose sànni jeter le discrédit euh, sur le collectif après man Bougane nga woo ma naan ma wuy wuy wuy tel candidat bëgg nañu waxtaan ak moom. Mhm. Très bien. il faut être sérieux. Mhm. Très bien. nañu nañu nañu respecter Sénégalais yi. Très man Bougane musuma am benn post mhm. musuma lekk litre essence au gouvernement. Très bien. musuma ànd ak Macky Sall képp ku ma xam-xam na ne je suis d'une opposition farouche à Macky bu ñu jéem a yàq deru doomu aadama yi fii nit ñi ay gor lañu. ku fi nekk kàkkatar sa problème la. très bien merci beaucoup <laughs> merci beaucoup mu nekkoon euh, président Bougane Gueye Dany jërëjëf ci leeral yi ndax mattoon na nga ngeen leeral ñu yéen ñi ci bokk ba pare ëmb le kuréel kon nag Fabrice Nguema je pense que euh, météo bi ñu fi analysé. Mm. Euh, xaw na méngoo tuuti ak li muy wax kon ay gor yu daje la président bu leen ooyee dinañ wuyu ndax mbirum mboolo la. waaw waruñu ko nattee ci mbindeef bu nekk bu ca bokk. waaye ñoom ñëpp la ñu war a jàpp ni comme bataaxal bi bind nañ ko dañu war a assumer rek dem jusqu'au bout mais nag nanguwuñu ne buñ fa demee li ñu leen fay proposer